FM li nga wax euh, ci grève bi lu ñu gis ñun ñëpp euh, démb nekk na lu metti ci askan bi parce que grève boo xam ne ne en tout cas mbooleem transporteur suivre na ko mu indi gàllankoor ci dem bi ak dikk bi ci fii ci Dakar mais ci ci biir réew mi loolu am jeexintal yoo xam ne ne baaxul ci sunu économie en tout cas économie bu Sénégal baaxul ci transporteur bi nga xam ne ne moom moo dem grève parce que revenu bi mu waroon am moom lay ñàkk ci fan yooyu yi nga xam ne ne jotu ko liggéey ba tax na ñun li ñu leen di wax foofu ci ministère des infrastructures te nekk sunu en tout cas credo mooy lépp loo xam ne gis nañu ko ci ay jafe-jafe fu muy mujjee mooy ñu toog waxtaan waxtaanee ko euh, jot nañ leen euh, invité euh, je pense loolu ñëpp dëgg nañ ko def nañ ci communiqué pour ñu tase waxtaan ci seen plateforme Euh, malheureusement euh, pour des raisons diverses nee nañu mënuñu fekkee réunion bi c'était le quinze démb tamit euh, bi nga xam ne ni gis nañu sumb nañu grève bi wóolul nañ leen. foofu ci Ageroute. mais mais loolu mooy loolu mooy problème bi parce que réunion bi ngeen leen njëkka woo ñoom ñu ni woon ñu ngi ci biir réew mi. wuñu ci invitation woo ngi leen woo ñu négocier ah. waaye laata laata grève démb bi laata ñuy sóob démb lu tax euh, ca démb sa euh, sàkku leen ni pexe éviter grève bi woo leen waxtaan ba la ñoo def li ñu def démb moom moom laa lay wax Babacar xam nga ñun suñu waxtaan ak euh, transporteur mosul am rupture parce que dafa am ay cadre de concertation yi nga xam ne ne am nañ ko ñu ngi gisee daanaka bés bu nekk mosul am rupture de dialogue soo gisee euh, le 15 passé ñu convoqué leen le 15 aujourd'hui on est le 30 ça fait quand même deux semaines euh, ñu convoqué leen jotuñu ñëw ñu ne dañu nekk ci tournée xam nga loolu ku la convoqué peut-être une semaine avant euh, ba paree balaa ñu leen di convoqué am na discussion yoo xam ne ne pour caler date bi bi nga xam ne ne directeur de transport terrestre transport routier Cheikh Oumar yi am na ko ak seen ñooñu pour ñu caler date boobu. bu ñu ñëwul dafa am loo xam ne peut-être derrière moo ko sumb c'est-à-dire que euh, mun nañu d'accord ne créer nañu cadre unitaire. da nga jàpp ne du tournée du tournée bi ñu. non tu tournée du euh, euh, tournée bi véritablement mooy raison bi. tour tournée bi alibi la kooku mun nañ leen ko nangul waaye kilifa lu toll na ci ministre des infrastructures bu la invité ci réunion yaakaar naa li ci gën a am solo wala tigginu mooy lépp loo jàppoon. surtout que yow da nga joxe plateforme. yéen kay da ngeen da ngeen leen a mere loolu nag moo jaaduwul en tant que ay kilifa non non non ñun ñun ñun duñ euh, leen mere non euh, euh, seen responsabilité diis na diis boo xam ni waru leen jiital seen seen mer wala dara di leen jéem a fenatal di leen bañ a dalal Babacar du ma dem ci terrain boobu parce que ñun encore une fois ni nga ko waxee ay kilifa lañu te dañ fi nekkal askan bi askan bi muy kuy def transport ak koo xam ne deful transport ñëpp lañu fi nekkal pour l'intérêt général ñoon suñu njaboot lañu nee naa la dañuy waxtaan foo xam ne ne nekkul ci plateforme ay dañuy demalante foo xam ne nekkul ci plateforme grève ñu bokk secteur bi ñu am pàcc bu am solo biñ ci biñ ci rôle biñ ci joué état lu muy créer mooy les conditions pour que privé bu nekk muy bu secteur de transport bu beneen secteur tamit mun a def activité am correctement xoolee su ma le premier élément pour nga mun a def sa activité transport mooy l'infrastructure kooku moom c'est le premier élément état bi def na ci ay jéego yu rëy pour que ñoom ñu mun a doxal seen activité tranquillement beneen bi mooy au niveau institutionnel état ak ñoom toog nañu waxtaan ci ay réformes yu am solo pour que secteur transport ñu mun ko teg ci raay parce que on est toujours dans l'informel il faut que ñu génn ci informel boobu ñu dem ci professionnalisation du secteur et loolu jël nañu ay matuwaay yu bëre pour gunge leen ñu yegg foofu là yaayu a une nouvelle loi d'orientation boo xam ne ne en juillet 2020 jot nañ ko tëgg ba ñu adopté ko au niveau de l'Assemblée euh, l'Assemblée nationale dans cette nouvelle d'orientation nouvelle euh, loi d'orientation lépp liñ ci jàpp soo xoolee mooy dooleel transport. mais bi ñu euh, nee dañoo nekk tournée est-ce que gënul woon ngeen leen kon semaine bi ci tegu ñëw leen ñu daje comme ça ñu bañ a egg ci lañuy ñuy dund tey. Georges. amul benn yoon boo xam ne ne tëj nañu bunt bi pour ñu toog waxtaan loolu du suñu cër léegi on a toujours continuer à leur demander de venir en réunion eux ils avaient programmé de continuer leur tournée jusqu'à la fin de leur tournée la fin de la tournée ça tombe avec ak ça coïncide avec seen démarrage grève loolu moom mooy dëgg mais ba tey ñu ngi ubbi suñu loxo di wax ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan ñu waxtaanee li nga xam ne ne dans tous les cas de figure ci waxtaan rek lañ koy mujjee pour traiter les questions loolu loolu lañu am pour pour wax leen parce que ñooñu sunu njaboot lañ loolu dañ leen koy encore feddali sunu sunu sunu sunu appel pour wax leen ne le ministère des infrastructures et l'ensemble de ses services sont encore euh, ñu ngi am sunu disponibilité pour que ñu toog waxtaan démb ci guddi ba 22 heures ñu ngi xaar pour ñu ñëwaat ñu toog ñu waxtaan parce que une journée de grève baaxul pour réew mi même bu fekkente ne c'est une partie des transporteurs ñoo dem du ñu wax ne non c'est une partie des transporteurs surtout que ils ont quand même. dans leur cadre bu leen wax bu leen wax une partie. grève bi moom. non waxuma une partie ma ne même bu doon une partie. même bu doon une partie moo dem grève dañuy toog ak ñoom waxtaan bi sàkkamtima c'est un cadre unitaire de l'ensemble des transporteurs. muy transport de marchandises transport de voyageurs taxi tout le monde ñoo ànd dem grève loolu baaxul ci sunu économie baaxul ci secteur bi ba tax na li nga xam ne ne moom la ñuy encore rappeler mooy le ministère des infrastructures et l'ensemble du gouvernement et ouvert à des discussions il faut que ñu mobiliser wu ñu ñëw ñu taxaw ci discussion yooyu ñu waxtaanee li nga xam ne ne moom mooy point yi lépp li nga xam ne ne mooy seen gal euh, seen seen seen seen mébét ñu waxtaanee ko li nga xam ne ne yoon may nañ ñu def ko ñu def ko li nga xam ne ne dafa laaj processus ñu nekk ci processus yi pour arriver au résultat parce que am na question yoo xam ne ne du sur un claquement de doigts lay lay lay y a un processus de mise en œuvre d'un certain nombre de de de de de choses pour qu'on arrive à un résultat probant. ci waxtaan woowu waxtaan ba xaajam guddi euh, lan mooy euh, principal euh, blocage bi tracasserie policière yi la wala fana bu ngeen xoolee plateforme bi dafa am dix points waaye bu ngeen dégloo tamit seen message depuis dëmb li leen gën a soxal mooy li nga xam ne moom la ñuy dund ci corridor bi fii ci Sénégal ak bitim réew. Euh, te loolu euh, mu am rapport bi nga xam ne dañ ciy jot très souvent mooy le rapport de euh, de l'OPA bi nga xam ne ne dafay wone le nombre de points de contrôle sur le corridor c'est-à-dire que au-delà de de de de tout ce qui se passe le corridor c'est que contrôle yi dañoo bare sur le corridor am na plusieurs raisons parce que le force de défense et de sécurité dañ fi nekk aussi pour aar askan bi waaye les les institutions communautaires am na recommandation yi nga xam ne jot nañ ko def pour que ñuy limiter le nombre de points de contrôle pour faciliter le transport et loolu dafa bokk aussi ci plan d'action communautaire pour les infrastructures de transport bu nga xam ne ne mois moo ko sumb sumb depuis très longtemps dans ce plan d'action communautaire mu am d'abord la remise à niveau des infrastructures moom la ñuy def ci corridor Dakar Bamako bi mu am l'autre aspect mooy la construction des postes de contrôle juxtaposés pour que les opérations de contrôle au niveau des frontières ñu boole ko ñaari réew yi bokk même emplacement pour accélérer les processus faciliter transport beneen bi mu limiter le nombre de points de contrôle à maximum trois ou quatre sur l'ensemble du corridor loolu état bi def ci taxaw depuis toujours pour que ñu arriver à ces points de contrôle mais ñëpp xam nañu euh, dynamique bi ñu nekk dans dans notre région avec l'insécurité l'insécurité grandissante qui fait que très souvent les forces de défense et de sécurité dañuy am information yoo xam ne ne man duma ko am yow Déthié yow doo ko am Babacar doo ko am pour euh, faire ce contrôle là il y a maintenant euh, ñoom lu ñuy wax euh, tracasserie loolu ñu ngi koy waxtaanee ak Euh, l'ensemble des membres du gouvernement qui sont concernés et je pense que dégg ngeen dëmb que le ministre Mansour Faye était en réunion avec ses collègues mooy policier yi leen di arrêté ci tali bi ñu nii euh, dañ leen euh, sonal waaye ñoom it transporteurs yi loolu am nañ ci wàll ndax seen doy waaru oto yi doy waar gi seen woto yi doy waar oto yi bëri na lu ci manqué loo xam ni daanaka auto transport woo jàpp Sénégal rek am nga loo ko mën a jàppee Babacar fa laa doon jëm. xam nga xam nga euh, je pense que dañoo nekk ci Sénégal te Sénégal am na nu ñu baaxoo. loolu tamit mooy dëgg waxtaan wax dëgg ca la am ngeen ci responsabilité waaye transporteur yi tam seen woto yi doy na waar doy waar goo xam ni foo ci arrêté kenn rek am na manqué manqué bu am ci wotaam moo tax nañ def lépp ci tey euh, ñu def ko ci ci ouverture ñu waxtaane ko euh, ñun ñaanuñu yàlla di nekk en euh, en tiraillement avec ñi nga xam ne ñoo tax ñuy liggéey mooy askanu Sénégal euh, transporteurs yi bokk ci am ci wàll bu rëy mais euh, su ñu xoolee secteur du transport que ce soit le transport de voyageurs le transport de marchandises y a des réformes importantes yoo xam ne ne dañ ko war a wéyal parce que tëgg nañ ko ci ay textes mais am na loo xam ne ne il faut que ñu doxal ko su ñu créer par exemple le fonds de développement de transport terrestre bu démarrer ses activités lancement bi yàggul fële ci King Fahd c' est parce que dañoo bugg jàppale transport pour ñu renouveler le parc automobile que ce soit le parc de voyageurs que ce soit euh, euh, le parc de de de de de, de poids lourd loolu mooy dëgg su fekkente ni defuñ ko amul benn transporteur bu yore fi tey jii camion walla oto boo xam ne ne bu dafay yóbbu ay nit pour ñu doxi seen soxla bu nekk totalement en règle ñoom xam nañ ko bu baax moo tax état dafay am lu ñuy wax ay dérogation ay tolérance te tolérance yooyu euh, dafay am toujours limite parce que yow nga nekk ci télé bi amoo visite technique wala nga falsifier sa sa si oto nga nga nga yokk ay ay ay ay essieux mu nekk des infractions majeures au cours de la route nga tase un homme euh, de force de défense et sécurité sur la route ñu contrôler gis lu mel noonu lan la ñu war a def normalement dañu war a immobiliser ce ce véhicule mais ak Sénégal nu ñuy dundee ñu xam difficulté bi nga xam ne ne moo nekk ci parc bi nit ñi accorde des dérogation mais tamit leneen loo xam ne war nañ ko teg euh, transporteurs yi seen woto yi baaxul waaye policiers yeeg gendarmerie yi euh, ñu bëri ci ñoom au lieu ñu euh, teg la ci yoon. Euh, daa am lu ñuy laaj ci suuf loolu tamit benn problème la boo xam ni euh, dëkk bi daal jaxasoo na. man man man du ma wax ñu bëri si ñoom xam nga xam nga boo waxee ñu bëri si ñoom ñu ngi généraliser. Euh, je pense que non généraliser wuñ. voilà ñu bëri ci ñoom du ñëpp. waaw waaw ñu bëri ci ñoom. waaw waaw mais loolu ku yor woto ci dëkk bi yaa ngi koy seetlu. je je pense que bu ñu waxoon peut-être am na si ñoom. mooy gën a mooy gën a méngoo. xalaat loolu nice nice la waaye. wax nañ xam nañ ni fii dëkk bi daal mi ngi noonu. ba Babacar gis nga njaboot bu nekk njaboot bu nekk am na loo xam ne ne dinañ ko ci gis euh, peut-être demeewul noonu mais ñun am nañu ay preuve yu leer nañ que ce soit au niveau de la gendarmerie que ce soit au niveau de la police ñi nga xam ne ne jàpp nañ leen en flagrant délit ñuy def lu mel noonu sanctionné nañ leen loolu moo am solo euh, je ne peux pas dire pareil de l'autre côté damay joxe benn exemple. xam nga li ñuy wax ni yow sa ministre Mansour Faye. déglu ma rek damay nekkoon na ci yoon bi tolloo Kébémer gis lu ni mel. loolu yëpp gis nañ daal di woo euh, ministre intérieur ne ko policier nangam xaw ma gendarme ñaar euh, policier la sa foog na ñi ngi def naka su dul noonu. moo tax moo tax ma ne ñi ci jàpp ñu def naka su dul noonu jot nañ leen sanctionné loolu moo am solo li ma li li nga xam ne dama koy wax pour que sénégalais yëpp xam ko euh, damay jël le cas. du contrôle au niveau des de de de postes de pesage nga xam ne ne dafa bokk ci éléments yi nga xam ne ne dañ ko jox comme comme comme point de plateforme le contrôle de la charge à l'essieu dafa nekk li nga xam ne ne euh, au niveau de mois les états se sont mis d'accord pour ñu limiter la surcharge à l'essieu sur nos routes bañ a di yàq tali yi ci de façon prématurée loolu ñëpp gis nañu diggante Kaolack ak Tamba dañ ko defar balaa la réception provisoire tali bi commencé di yàqu loolu ñu am ci problème ak entreprise yi ko doon tabax ñu dellu ci loolu bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu décidé def au en 2012 au Sénégal l'application du règlement ñu accordel à l'ensemble des transporteurs suivant la feuille de route bi nga xam ne moom la ministre yi di édicter lu ñuy wax une dérogation xam nga fi ñu la accordé dérogation ça veut dire que tu n'es pas en conformité vis-à-vis en tout cas de la loi ñu defal leen dérogation 20 pour cent de surcharge supplémentaire cest à cinquante tonnes boo waroon charge ñu jox la dix tonnes supplémentaires te dix tonnes am na jeexintal bu bon ci tali bi tout ça parce que ñu xam ne ne le parc automobile au Sénégal est vieillissant donc il faut penser à le renouvellement. mais euh, janvier amoon ngeen ab euh, euh, protocole d' accord yu nga xamante ne signé woon ngeen ko pourquoi doxaluñ ko ba léegi. dans ce protocole d'accord y' a beaucoup de choses qui ont été faites mu am yoo xam ne ne jotuñ ko def xam nga nee naa la bu ñu wax dañuy régler le problème. du contrôle routier. C'est ton processus. La police et la gendarmerie ont pris des mesures ferme pour mettre en place des équipes de contrôle routier identifiables nga xam ne ne ku gis ku leen gis xam na ne ñi ñooy nekk contrôle routier def nañ ko à Dakar mooy policier yi nga xam ne dañuy sol lu bleu sol képpi bu weex ñoom ñooy def contrôle routier keneen amul pour def contrôle routier waaye beneen policier bi nga xam ne solul lu weex li bu tase koo xam ne ne mu ngi nekk en infraction compte de sa mission de sécurité il est obligé de faire quand même le contrôle parce que on ne peut pas dire que diw moo koy def nga tase kenn mu ngi def naka sudul noonu ci tali bi nga ne noonu dama koy bàyyi parce que ku sol kapi bu weex bi mu ngi police mu ngi ci jéego yooyu gendarmerie mu ngi ci jéego yooyu on a programmé de faire les brigades mixtes. léegi lu ñu bëgg a xam askan bi bëgg ko xam. nit ñaa ngi fi ñu toll nii ñun bi ñuy xëy si quatre heures du matin gis nañ nit ñi di dox di liggéey euh, am nañu taxaw jamono ji ñuy wax ak euh, ci arrêt yi di wut wota. am ñu toog seen kër seen liggéey yàqu grève bi dina jeex tey wala du jeex tey. xam nga grève bi jeex tey mu ngi dépendre ci gouvernement bi mu ngi dépendre ci transporteur parce que ñu ngi leen di woo pour ñu toog su fekkente ne woon nañ leen pour ñu toog dañoo war a ñëw ñu xam ne ne ñu ñàkk toog pour waxtaan. démb euh, ñaan nañ leen ko neen nañ leen def ngeen une journée de grève ñëpp gis nañu impact bi mu am ci ci réew mi liñ leen di ñaan puisque d'abord il faut ñu xool citoyen bi nga xam ne ne moo nekk ci réew mi war a dox soxlam malaat bi nekk ci kër gi war a dem faju ki nga xam ne ne war a dafa war a jóge këram dem jàngi parce que dafa war a dem école sunu suñu doom yi war a dem école ngeen xool loolu yépp ngeen xam ne li ñu sumb peut-être que dinañ démarrer suñu waxtaan euh, dëmb walla tey mais dina am loo xam ne ne du jeex tey waaye ngeen ñëwuñu toog ngeen arrêté grève bi parce que loolu lañ leen di ñaan parce que ay responsable ñoo fa nekk xam nañu euh, ñi fa nekk am nañu considération bi nga pour pour pour citoyens yi bàyyi leen grève bi ngeen ñëw ñu toog ñu waxtaan ci table bi ñu trouver solution. mais yéen loo leen di proposer pour mbir mi dakk euh, li ma la mën a wax léegi sans sans pourtant que réunion bi di déjà par rapport au point de contrôle yi ñu doon laaj am na ay avancées majeures te suñu toogee ci table bi le ministre Mansour Faye di la na wax avancées majeures yi nga xam ne jot na ko am dëmb ci discussion bi mu am ak collègue yi nga xam ne moo nekk forces armées ministère de l'intérieur ak euh, le ministère des finances pour que ñu réduire le nombre de postes de contrôle qui concernent beaucoup de départements ministériels par exemple euh, douane mu ngi ci police mu ngi ci gendarmerie mu ngi ci eaux et mu ngi ci loolu d'accord nañ ne euh, suñu toogee dinañu conformément aux recommandations Euh, en tout cas de de de l'UEMOA ñu réduire le nombre de points de hmm. contrôle. jërëjëf yéen ak seen ministère bi yéen ak euh, seen i chantier TER bi yaa l'observateur xëy na ñu xamal ni. Euh, vingt 23 xaw ma 24 décembre lu Mansour Faye waxoon sax Macky Sall nee na 27 euh, décembre mbaa du ngeen dem dem moom TER bi moom dana doxa euh, Babacar li ma la mën a wax mooy TER bi lépp yemb na dina am peut-être ay problèmes technique trois entre le 24 et le 27 vraiment je pense que loolu jarul sax peut-être ñu ciy gaar yi am la ca de voilà mais mais mais li nga xam ne ne mooy tax ñu am autorisation d'exploitation parce que TER du caaxaan c'est 25 kilovolts ci raay yi loolu am nañu ko donc euh, sénégal yi mun nañu espérer effectivement dugg seen terrain blanc la fin de l'année incha allah jërëjëf jërëjëf euh, euh, sunu gan tey kon di Mamadou Alassane Camara directeur des routes te ministère des transport ñu yendu ak jàmm jërëjëf Georges Ziar Fati aca loolu nuyu sama naataango yi nekk rajo Futur Média nuyu suñuy